mu ne la ndeysaan ci ki nga xamante ne mooy Valérie ndeysaan Valérie de moom xanaa du turu sénégalais moom Valérie moo ñu féetee ndeyjoor Anaconda moo ñu moo ñu doon di yëngal digg li ndeysaan Anaconda daa mel ni usine benn tali la jóge ndeysaan egiri sàkku xam-xam la jóge Valérie nekk jëf soog a nekk Anaconda jokkaas na remise nañu ko ndeysaan jàppante nañu ñoom ñaar dañuy bëre ndeysaan bëre xale dañuy bëre ñoom ñaar dañuy bëre anaconda ngi noonu anaconda jàpp na anaconda nga ca suuf bala rëng anaconda bëtt na ko laa ilaaha illallah xale bi defati na affaire anaconda daan na ko laa ilaaha illallah anaconda daan na ko jël bu rëy ndeysaan foogeewul loolu anaconda ngi noonu Valérie foogeewul loolu ndeysaan foogeewu ko